salaamaaleykum mbokku internet waa euh, dakarnet.com euh, tey euh, dañoo fas yéene dalal koo xam ne mun naa ni ñëpp xam nañ ko ràññee nañ ko papaam di El Hadj Bécaye Mbaye moom jooylu lay ko comme ni ko papaam daan defee ci bantamba bu dara musaan xew mu jàllale message bi te dañ koy jox comme moom mooy relève tamit nekk porte parole yaakaar naa bu waxee tamit ñëpp dañ koy dégg dañuy jox lu dul jox jox kàddu yi mu nuyoo après di ko moom jox daal Modou Mbaye ñu ngi maa ngi lay fay bu baax a baax a baax mon frère di la siyaare di am mbégte ak kontaante di jàkkaarloo ak yow di jàkkaarloo aussi téléspectateur wala internet yu Dakar euh, net maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di leen siyaare di am mbégte dalal leen tey ci biir Bantamba TV. tey nag xam ak ah, dugg xuus doon dox fan yii passé manifestation mu amoon ay mort hmm. am ay blessé. am nañ sax dégg nañ ñu ne euh, ministre de la justice dafa euh, dem fee France 24 ne mbëri yoo xam ne dañoo nekk Covid ñu ne laaj tey loolu nan nga ko gisee. waaw bon sant yàlla bu baax a baax julli ci yonent bi di nuyuwaat encore une fois sénégalais yi di bëggee bu baax a baax waaw manifestation yi amoon ci Sénégal li li li waxoon nañ ci xam naa dañ ciy waxaat rek li li waraloon manifestation yi déjà moo doon ndaw Sénégal ñoo xam seen bopp ndaw Sénégal ñoo yombatu la nax ndaw Sénégal ñoo xam li nga xamante ne ni moom moo leen war ci seen réew waaye tamit ñoo xam li seen réew warloo ak ñoom ba waral ba tax yu bari yoo xamante ne ni ñoom ñu ngi koy seetlu ci biir réew mi ne amu ci loolu waraloon xale yi génn bokk na ci liñ doon xeex démocratie bokk na ci liñ doon xeex ñu joxaat doomu aadama àqam ak yelleefam bokk na ci liñ doon xeex ñu gën a xam ne ndaw am na wàll wu rëy ci réew rawatina suñu réew ndax la majeure partie de la population est jeune bokk na ci liñ doon xeex te gi nga xamante ni yoon wi nguur wala yoon tee woon nañ ko Ousmane Sonko tey ko ko ci ay mbir yoo xamante ne ni jàppoon nañ ni ay ay ay politique ko lal jàppoon nañ ni ay mbir la yoo xamante ne basé wul ci ay kayit yu leer loolu la xale yi jàppoon ba tax ñu génn mu nekk manifestation yoo xam nag Sénégal amaat na ci xar kanam gu bees amaat na ci xar kanam gu yees nga xam nañu cene ndaw ñi am na loo xamante ne nii dootuñu nangooti kenn di ko defati ci seen réew dootuñu nangooti kenn nekk ci kanam wala ci bopp réew mi am ci benn taxawaay boo xamante ne nii ñoom neexu leen wane nañu ne ñoom réew mi dañ leen war a déglu dañ leen war a bàyyi xel loolu yëpp doon loo xamante ne dañ koy rafetlu. ñu ci ñàkk seen bakkan nag di leen ñaanal suñu borom xare leen aljana yàlla mooy dogal ñooñu ñëpp dëgg la ñaax nañu seen bakkan tiire nañu ci seen kaw mais bu ñu fàtte ni yàlla suñu borom moo ne bakkan bu ñoom dund di nga ñam dee. ñoom yàlla moo programme woon seen dee keroog foofu la waroon a amee mais bon sant yàlla di masaw seen ay famille di leen wax ni metti na ndaw nekk ci réew di kaas wala di jug ngir xeex akam wala nekkinam ci réew mi mu ñu dóor ko bal mu dee metti na ñu ngi leen di masaw bu baax di leen ñaanal yàlla may leen xolu muñ di masaw waat la jeunesse sénégalaise parce que ñoom it am nañ ci lu leen metti boobu ba léegi ni xale yi ñi ngi wax ñi ngi naan foo fokk justice sa face faw ñi ngi woote di wax ni na yoon am na yoon am loolu yëpp day wane ni rek xale yi am nañ ci lu leen metti trop di leen masaw ministre de la justice nag am na ci loo xamante ne nii tamit waxoon nañ ko ci man xamuma ko sax le ministre de la justice xamuma moom mooy kan dama jàpp rek ni réew mi nga xamante nii moom lañ ko fal jox ko jox ko jox ko ministre de la justice ci réew ci ci ci réew moom moom xamul réew mi dama jàpp ni moom dafa réere Sénégal dama jàpp ni moom dafa xamul lan mooy Sénégal ndax Sénégal dëgg la dëkk la boo xamante ne nii. xam-xam yàgg na fi jàng yàgg na fi waaye làmb yàgg na fi te am na lu mu fi def am na fi ñoo xamante ne ni ay mbër lañu am na lu ñu def ci réew mi bu njëkk dañ daan wax naan jigéen lu mu bon bon jur mbër waaye léegi dañuy bokk bokk na ci ñi nga xamante ni bëgg nañu ñu jur leen mbër ndax gis nañ teraanga yi ñuy def ci seeni ay kër yooyu yëpp nag doon mbir yoo xamante ne nii bu dee moom xamul ni xale yooyu jom moo tax ñu jug bu fekkente ne moom xamul ni xale yooyu fulla ak fayda moo tax ñu jug xam ni seen réew am na loo xamante ne warloo na ko ak ñoom lépp mënu koo matal ba tax ñoom ñu génn teg seen doole teg seen bakkan teg seen lépp ne dañu koy teg ngir mun a réussir bu fekkente ne ñooñu moom mun leen delloowaat njukkal mun leen remercier mun leen a féliciter bu mu leen teg ci yenn affaires yi. bu mu jël seen tur di ko yóbbu ci yeneen mbir yoo xamante ne ni dëppoowul ak ñoom la ñuy def du ma ni ci biir manifestation manifestants yi amuloon ay mbër parce que mbër citoyen la te mbër yi mën na am wala mbër yi am nañu lu leen naqari ci réew mi toog nañ depuis un an manifeste euh, bëriwunu kenn déggu leen ñu génn ñu manifester lii bu amee duma ma ni mbër amu ci parce que du ma ni Mourou Mbaye nekku ci du ma ni keneen ak keneen nekku ci. waaw. nde waaw Gris Bordeaux loolu bu ko waxee daf ko daf ko wax ci il faut tamit ñu nangu tamit di déggee affaire yi léeg lekk fi nga xamante ne foofu la gaañ di waxee Gris Bordeaux bu ko waxee waxul dafay porte plainte parce que y avait pas de lutteur ci manifestant yi dafa wax ni dafay porte plainte parce que le ministre a été clair dafa ni ñi doon génn di manifester ay mbër lañu ce sont des lutteurs comprendre nga tey bu fekkente ne dafa wax loolu ah doy na waar. doy parce que leer na ko ni moom nekkul xale yi nga xamante ne nii ñoo toog bëriwuñu un an xale yi nga xam ne ñoo doon nekk ci écurie yi di entraîner di def bodybuilding doon def chaque semaine ñu exercer seen métier nekkul xale yooyu ñoo génn di manifester yeneen xale yoo xamante ne nii sax amaana seen dimension wala seen xam-xam wala seen tolluwaay jéggi na sax ñooñu muy wax ay xale yoo xamante ne nii ay xale yu. bëgg seen réew ñoo génnoon di wax xale yi génnoon di wax moom waru ci woon génne sax ay doomam parce que ay doomam war nañoo mën a bëgg seen réew ba lii xale yi doon kaas ñu génn kaas le ko sax avant avant kii di am noonu gis nañu mbër yi sax toog def benn plateau waxtaan kon yaakaar naa ne mbër yi nekkul ñoom ñoo wàccoon ci terrain bi di ci def comme ni mu mais mbër yi daje nañu à maintes reprises daje nañu Pikine ci li booy Niang woote woon daje nañu. comment dirais-je Cheikh Katia ci association nationale des lutteurs en activité li ñu woote woon te Gris Bordeaux du président bi bi ñu wootee dégg nga leen ñu ne ñoom woote wu ñu marché woote wu ñu dara dañuy ne ñi ngi ñaan encore une fois nguur may permettre leen ñu mën a liggéey tey jii ñooñu bu fekkente ne moom jéemul wax ci ñu tijjal xale yooyu seen métier ñuy ubbil leen ko ñu jéem a liggéey moom warul toog fenn di dénigrer xale yooyu. mel ni mu dem France 24 ñu xam loo ay étranger lañ ak ñu làmb amee valeur. dañuy jël suñu doom yi sax dañuy jël dañuy dem ba extérieur dafa bëree làmb est rafet na tey image boobu noonu ak dégg-dégg boobu noonu ñu naan sénégalais yi mbër yi ñëwoon wàcc diir. waaw kenn rafetluwu ko kenn rafetluwu ko day loo xamante ne ni kenn d'accord ci mais sant yàlla sant yàlla parce que xëy na làmb moo xaw a weex dun rek ba lu ñu wax wax ko làmb mais moom war na xam ni li may wax. c' est valable pour moom li may wax valable na pour le ministre valable na même pour le président de la république et ses seen ay doom bu fekkente ne xam nañ seen àq ak seen yelleef bu xale yii ci réew mi génnee di xeex ñoom war nañ cee mën a bokk ndax ci réew mi lañ bokk loolu nag laa ci am lu ma koy wax di ñaan yàlla jàmm continuer ci réew mi yàlla jàmm am ci réew mi li mu wax moom ñi mu concerne dëggantaan dinañ dinañ ñi ngi ciy dox ñi ngi ciy wax ñëpp xam nañ ne le ministre de de la justice dafa def erreur ci communication am mhm. ñëpp xam nañ loolu te kenn rafetlu wu ko. d'accord ah, yaakaar naa ne loolu nan leer ñu gis ne arène bi incha allah euh, jàpp nañ sax benn date boo xam ne tamit gars yi ñu ngi koy bàyyi xel muy le 4 di Lac de ak Eumeu Sène euh, est-ce que yow ko mën a jàngatee comme ça ñu ne ci Covid bi gars yi naan sax euh, du nekk du nekk wi këlo est-ce que ñu ngi jox tey. information bi leer ci bokk waaw man bu fekkente ne man mënuma ci joxe information c'est pas parce que du man maay décider mm-hmm. parce que ñiy décider ñoom wax nañu ci dégg nga le ministre des sports keroog war yaakaar naa demoon nga conférence de presse bi bi mm-hmm. amoon au ministère des sports mm-hmm. dégg nga mu dinañu permettre ñu dinañu permettre activités yi. ñu recevoir nit ñi ñu mën a dugg seetaan mais ñu respecter mesures barrières yi loolu kay c'est une très bonne nouvelle macha allah di ci sant yàlla bu baax a baax na xale yi dugg ñu respecter les mesures barrières ñu bëri permettre at xale yi ñu delluwaat ci seen li liggéey permettre xale yi ñu delluwaat ci métier seen métier bi nga xamante ni moom la ñu namm waaw bu baax a baax a baax. comme tey Eumeu seen Lac de Guiers bu metti la combat la boo xamante ne du yomb parce que ñoom ñaa ñëpp seeti naa leen y a même pas deux semaines ku ci nekk dem naa yendu ak yow yendu ak Lac de xool état de forme xool état d'esprit am fi toll xool li nga xamante ne noonu lay préparé combat bi il est fin prêt combat la mbër la moo xamante ne Lac de moom il respecte ses entraînements mbër la boo xamante ne ni ku professionnel la mbër la boo xamante ne nii sénégalais yi bari na lu ñu koy critiquer naan dafa défensif dafa défensif mais xëy na loolu mooy système bi nga xamante ne nii noonu lay bëree mais ni ma ko gisee physiquement il est prêt am na doole bi ma fa jógee ma dem seeti Eumeu seen aussi ku gis naa ko moom it mu nekk ci état bu am solo macha allah ci état bu baax ba pare am hygiène hygiène bu baax te loolu bu baax na ci sportif nga nekk nga am hygiène boo xamante ne nii hygiène bu baax la. baax na ci sportif mu nekk ci condition yoo xamante ne ni dina ko permettre wala condition yoo xamante ne ni dina tax tey say ay entraînement nga am temps de récupération bu baax baax na ci sportif muy am yu mel noonu te gis nañ ko ci ñoom bu ñu ñëwee nag ci biir combat parce que ñoom ñaar bëri nañu à deux fois bi ñuy waaj bëri mooy seen troisième combat troisième combat nag bu ñu waxee ni ñaari mbër ñi ngi bëri troisième fois cela veut dire les deux lutteurs se connaissent xamante nañu bu baax a baax ama seen bëri naa la dëgër seen premier combat ñu match nul combat bi metti lool ñu xeex xeex bu metti bëri fa bëri bu metti ku ci nekk sa morom ku ci nekk nga gis sa moroom ci facette ci bëri ci défense ama seen door la dëgër mu kaawoo nga gis après fi ñu mujjee mu nekk làmb joo xamante nii dañoo mujjee match nul deuxième combat bi ñëw ama seen daan la dëgër mu nekk la seule et unique défaite de ak de Guiers numéro mu muy nag combat boo xamante ni comme ni nga ko waxee nga ni seet nga ñoom ñaar ñëpp est-ce que yaakaar nga ni combat bi dina am match nul. non je pense pas je pense pas que dina am match parce que Eumeu Sène sax du ci bëgg ndax ci li mu jugee dafa jugee ci défaite contre ki nga xamante ne nii mooy Modou Lo perte couronne roi des arènes am kon bu ñëwee dafa bëgg a wu dafa bëgg a daan. moo tax mu duggu ci combat bi Lac de Guiers numéro 2 moo daan booy Niang mais daan bi mu ko daan man convaincre ma. Mhm. waaw am naa ci droit ma waaw parce que daf ko war na daan na ko. moo am victoire moom la ñu jox ndam mais c'est-à-dire je parle sportivement nag quoi laay waxee rek que Lac war na mën a daan booy ñaar jël bu leer nañ ñi. dama bëggoon daan mu daan ko ba toog ci kawam loolu mooy yoon comprendre nga bu fekkente ne daf koy daan mais li ci am li ci am n'empêche victoire la ñu ngi ko koy féliciter bu baax a baax a baax mais loolu ci loolu nag laa lay waxee ni Lac de loolu bu xoolee ci loolu combat am bi. du yomb dafa war a bëre bëre bu leer. kon daal ñu mën a jàpp ne combat bi dina metti trop parce que bi gisee Eumeu Sène euh, ci défaite la jógee contre Modou la dageer jóge ci victoire boo xamante ne nii. Mhm, boo ko boo xamante ne nii dafa war waroon a daan kooku ba toog ci kawam. comprendre nga ba mu leer certes nag moo daan ñu ngi koy féliciter encore une fois damay bañ Sénégalais yi parce que ci waxu Boy Niang la ñuy wax damay bañ rek ñu xam nga ñu am fuñ ko féetalee mais juste ci côté sport quoi Lac de daan na Boy Niang jëli bi leer na daan na ko amul benn problème mais bu ñu naan leer na ak leerul loolu waroon na ci bañ am. kon yaa xam ne combat bi kon combat bii nag. Mhm. mooy combat bi nga xam ci la Lac de war a wane. Mhm. tey jii ku ci daan yow. ah ah ku ci daan. Modou Lo mooy roi des arènes te Modou Lo mi ngi bëri am Ama Balde Lac de dese na ko yeneen adversaire ci làmb Lac de war na may revanche Tapha Tine. Mhm. du côté war na may revanche Tapha war na bëri Gris Bordeaux mhm. ci yoon ah. Mhm. war na mën a bëriwaat ak Modou Lo pourquoi pas. comprendre nga waaw ah, puisque bëri naa ak Eumeu Sène trois fois comme puisque ñoom grand yi ñi ciy wàcc ñi ciy nangoo wàcc Lac de Guiers rek a ci wàccagum. ak Modou la Lac de ci wàcc jël Boy Modou Lo ci ñëw jël Ama. Mhm. comprendre nga. ñu ngi mooy mooy loolu. ci côté Eumeu Sène. ci côté Eumeu Sène. bu fekkente ne pare na ci combat bi puisque nag CNG gars yi ñu ngi wax naan que dañuy yokk atu ñuy bëre. Mhm. amatul âge âge fixe booy retraité. Mhm. amul problème xëy na Eumeu Sène nag bu paree ci loolu war na mën a may chance ay raxam. waaw may chance Sa may chance Gouye Gui. parce que Eumeu amatul lu mu prouvé ci làmb nekk na roi des arènes. Mhm. yegg na ci kaw. Mhm. daan nañ ñi fi man moo daan la dëgër daan bo daan moo la dëgër daan Balla Gaye daan mu ñoo fi man Modou Lo moo ko fi daan moo daan mhm. Bombardier Eumeu <laughs> Eumeu ndaanaan la. ndaanaan la moo daan Bombardier daan Balla Gaye daan Gris daan la dëgër. champion la c'est un très grand champion. bu paree ci combat bi su ma doon moom lu ma koy wax mooy nag yokk ut xaalis ci làmb. xaalis bi yokk xaalisam ci làmb mooy na bëreeg booy yi na may booy chance parce que yooyu ay combat yu neex la ama seen guy gi ama seen Sa mm-hmm. yooyu ay combat yu neex la mm-hmm. ay combat la yoo xam ama seen Garga Mbossé ñaari njuukkat yooyu loolu dafay neex